الحمد لله رب العالمين دنا سانت سون بروم باخ نانغ سانت سون بروم باخ مومن بوليك سيرين بي تي بوليك بي مونو بوليك سيرين بي سانت سيرين بي دي سانت سيرين بي moom mi nga xam ne mooy suñu léppi tey ëllëg moom mi nga xam ne mooy suñu léppi tey ak ëllëg nga xam ne itam lu mot wax wax na ko ñu xam ne itam lu mot a wax wax na ko moom sëriñ lu mot a def def na ko lu mat a def def na ko lu mat digle digle na ko lu mat a digle digle na ko bàyyiwul dara bàyyiwul dara ba tax na ba tax na waxuma sax jaamu sunu borom mi nga xam ni moom rek moom rek la bëgg ci noonu waxuma sax jaamu sunu borom jaamu sunu borom mi nga xam ne loolu rek la bëgg ci ñun waxuma la liggéeyal ko liggéey bu sel li nga xam ne mooy sunu njariñal tey ëllëg waxuma la liggéeyal ko liggéey bu sell boo xam ne mooy suñu njëriñ njëriñu tey ak ëllëg. waaye dañ ko ameel cant gu rëy rëy. waaye dañ koo ameel cant gu rëy rëy. mu ne su ko wax ci làmmiñ. mu ne su ko wax ci làmmiñ. ci jëf rek lañ ko mën a euh, lañ ko mën a euh, wane suñu kem kàttan. ci jëf rek. lan ko mën a wone ci sam sun kem kattan alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin liggéeyam bu rëy bii liggéeyam bu rëy bii sant nañ ci bu baax a baax sant nañ ci bu baax a baax ndax lépp mooma ndax lépp mooma dafa fekk na nag. dafa fekk na nag. doomu aadama dafa doyadi. doomu aadama dafa doyadi. ba tax mu mel ne dafa am dafa dafa xaaj mbooloo mi dafa xaaj. ba tax mu mel ni mbooloo mi dafa xaaj. am ñu farlu lool. am ca nam ko bëggee. am ñu farlu lool ca nam ko bëggee. am ñu sàggan lool. ca nam ko bëggee. am ñu sàggan lool ca nam ko bëggee. am ñu xam lool ak jubloom. am ñu xam lool ak jubloom. am ñoo xam ni am nañ ci kumpa lool. am ñoo xam ne am nañ ci kumpa lool. loolu lépp nag. Mhm. loolu lépp nag. farloog sàggan rek fi nekk. farloog sàggan rek moo fi ne. moom lam bëgg lépp am na ko tey ak ëllëg moom lam bëgg lépp am na ko tey ak ëllëg yërëm jaam ñi rek moo tax mu bëgg ñu nekk ci lañ war a nekk yërëm jaam ñi rek moo tax mu bëgg ñu nekk ci lan war a nekk lan war a nekk nag du dara lu dul jaamu yàlla lan war a nekk nag du dara lu dul jaamu yàlla ak liggéeyal ko liggéeyal ci lépp lu baax. ak liggéeyal ko it ci lépp lu baax. adduna sax naka jëkk lii nu ci metti tiital nu ci mos fay jóg. adduna sax naka jekk lii nu tiit lii nu ci metti tiital nu sax mosu cee jóg. muy càggante gu ëpp gi. mu càggante gu ëpp gi. mosu fee jóg mosu fee jóg. nak rawati na suñ jamono ji rawati na nak suñ jamono ji dafa melne li ëpp ci mbolo mi dafa mel li ëpp ci mbolo mi aduna fàbbi na leen adduna fàbbi na leen ba talatuñu sunu borom ba talatuñu sunu borom talatuñu it alakhira talatuñu it alakhira lolu yaatunalool nee na loolu yaatu na lool waaye li ñu war a gën a sant sëriñ bi waaye li ñu war a gën a sant sëriñ bi dëkkam bu sell bii dëkkam bu sell bii am na ci ñoo xam ne suñu boom may na leen tawféex juróoy am na ci ñoo xam ne suñ boroom may na leen tawféex ju rëy rawatina ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci diine ji rawatina ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci diine ji ak ñi taqoog ñoom ak ñi taqoog ñoom duñ teqalikoog ñoom wenn waxtu duñ te duñ teqalikoog ñoom wenn waxtu lépp ngir xam seen warteef lépp ngir xam seen warteef ak xam ju sëriñ bi ak xam bëggug sëriñ bi ñu nekk ci diggante boobu ñu ne ci diggante boobu di jullit yu mat di jullit yu mat di taalibe yu mat. di taalibe yu mat. loolu fa tabaarakallaahu. loolu fa tabaarakallaahu. am na fi am na fi. Eh, waaye nag. waaye nag. càggante gi moom. càggante gi moom. yaatu na lool. yaatu na lool. te doyo dig doomu aadama dëgg la. te doyo doomu aadama dëgg la. waaye càggante gi nag moo ëpp. waaye càggante gi nag moo ëpp. sëñ bi moom lu nit xamadi xamadi xamadi. waaye sëriñ bi moom lu nit xamadi xamadi. xam ne euh, biñ ko gisee bañ ko noppee gis. xam ne biñ ko gisee biñ ko gisee ba noppi koo gis. tëlu fil dara lu dul boromam. tëlu fil leneen lu dul boromam. lu dul ndigal lim am ci yonent bi. lu dul ndigal lim am ci yonent bi. mu nekk seen diggante. mu ne seen diggante. bawul dara lu baax. lu baax. bawul lu baax. lépp. lépp. def na ko def na ko luñ mën a teg bët luñ mën a teg bët luñ mënta teg bët ak luñ mënta teg bët waaye luy luy tegtale lu baax waaye luy tegtale lu baax sëriñ bi def na ko sëriñ bi def na ko yërëm gi mu yërëm jaam yi itam yërëm gi mu yërëm jaam yi itam tax na teg na wane na yoon wa nga xam ne moom la bëgg nu tegu ca tax na wane na yoon wi nga xam ne moom la bëgg nu tegu ca muy rek fonk suñ diine mooy fonk suñ diine fonk suñu taalibe rek fonk suñu taalibe itam fonk suñu taalibe itam ndax diine ji moom fu la ko fekk ndax diine ji moom fu la ko fekk waaye bi mu itam waaye bi mu itam la ca war lépp def na ko. la ca war lépp def na ko. taalibe gi moom. taalibe gi moom. naka jekk suñu yoon suñu yoonu yàlla mu ngi fi woon. naka jëkk suñu yoonu yàlla mi ngi fi woon. waaye nag. waaye nag. moo taxaw fii. moo taxaw fii. fa ñu ko gisee rek lañ lañ tàmbalee gis. fa ñu gis fa ñu ko gisee rek la ñu tàmbalee gis. taxawaayam bi mu nam ma taxawal boroomam. taxawaay bi mu nam ma taxawal boroomam. ca loolee la nekk. ca loolee la nekk. jaar fa war a jaar fépp. jaar fa war a jaar fépp. def la war a def lépp. def la war a def lépp. wakyonna gwasuufu watona gwasuuf wakyonna gwakawo watona gwakawo lepit lepit ci boromam rek ci boromam rek kon nanu góorgóorlu bu baax kon nanu góorgóorlu bu baax delloo delloo sunuy xel delloo sunuy xel gën a yëngal sunuy xol gën a yëngal sunuy xol jëmee ko ci li mu fi bàyyil jëmee ko jëmee ko ci li mu nu fi bàyyil diine ji rek la nu fi bàyyil diine ji rek la nu fi bàyyil ak liggéeyu boppam bu rëy bi ak liggéeyu boppam bu bi nga xam ne ak taalibe ci ci la jóge bi nga xam ne ak taalibe ci la jóge kon li nu war mooy góorgóorlu bu baax kon li nu bu baax wattandiku càggante wattandiku càggante adduna fàbbi na fàbbi nanu adduna fàbbi nanu ba talatum lu dul moom ba talatum lu dul moom te lanu jig day te lanu yëg day lanu jig lanu jig day mooy jaamu yàlla. mooy jaamu yàlla. jaamu yàlla rek nu jik jaamu yàlla rek nu waaye sàggane sa diine. waaye sàggane sa diine. du la yóbbu ci jaamu yàlla. du la yóbbu ci jaamu yàlla. te du la bàyyeeg neen itam. te du la bàyyeeg neen itam. ndax ginnaaw tëlatuñu sunu borom tëlatuñu tëlatuñu alaaxira gën jëm. ginnaaw tëlatuñu sunu borom tëlatuñu alaaxira gënu jëm. ngir àdduna ji rek. ngir àdduna ji rek. te day. te day ki xam ki xamal ñi xam. te ki xamal ñi xam. ñi xam-xam lim leen xamal. ñi xam-xam lam leen xamal. dégg nañ wax ba. dégg nañ wax ba. adduna bu fekkoonte ne suñ borom da koo yemale woon ak laafu yoo. su adduna bu fekkoon ne sun borom da koo yemaleeg laafu yoo. kon ab yéefar du ci am kaasu ndox bu mu naan. kon ab yéefar du ci am kaasu ndox bu mu naan. kon adduna amu jarul dara. kon adduna jarul dara. te nekk ci li nga war a nekk. te ci li nga war a nekk. du yàq dara ci li ñu yem fañ nu yemloo. du yàq dara ci ñu yem ci fañ nu yemloo. noo ngi lekk ñoo ngi naan. noo mm-hmm. ngi lekk noo ngi naan ngi sol mbubb. noo ngi sol mbubb. noo ngi nekk ci kër. noo ngi nekk ci ay kër. ay xéewal yu bari. ak ay ak ay xéewal yu bari. waaye loolu lépp. waaye loolu lépp. ndimbal rek la war a doon. ndimbal rek la war a doon. mu su su su su sunuy xel. ñu jublu sunuy xel. ak sunuy xol. ak sunuy xol. mu nekk mu nekk ci nun yitte. mu nekk ci nun yitte. góor ba lu ba bañ a yittewoo lu dul yàlla. lu nu lu nu doyadi doyadi. lu nu doyadi doyadi. mën na noo yittewoo sunu sunu borom. jiital ko sunu yitte. jiital ko ci sunu yitte. lañ mu ayalul lañ mu ayalul lañ lu ayalul sañ nañ sañ nañ koo jëfandikoo sañ nañ koo jëfandikoo gan gu rëy ngi nii nee gan gu rëy ngi nii gu bari njariñ gu bari ay njariñ gu sëriñ bi fonk gu sëriñ bi fonk kon nanu góorgóorlu kon nanu góorgóorlu fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu ñooñ ñooñ sëriñ bi ñooñ sëriñ bi wax ji taxu leen a jóg wax ji taxuleen a jóg ndax ñoom ñu ngi ci li nekk ci li nekk ndax ñoom ñu ngi ci li ñu nekk taluñu àdduna taluñu àdduna ngir ngir xalaat seen diggante seen boroom. ngir xalaat seen diggante seen boroom. ak jaamu ko seen kem kattan ak jaamu ko seen kem kàttan. kon kenn ku ne. kon kenn ku ne. xam nga sa bopp. xam nga sa bopp. bu càggante nekkee ci yow. bu càggante nekkee ci yow. xam nga ko. xam nga ko. bu farlu nekkee ci yow. bu farlu nekkee ci yow. xam nga ko xam nga ko. te ñi farlu. te ñi farlu. lu ñu def xeeb nañ ko. lu ñu def xeeb nañ ko. seen diggante ak seen borom seen diggante seen borom. ñi sàggan nag. ñi sàggan nag. càggante càggante gi day gën a day gën a yokk rek. càggante gi day gën a yokk rek. boo xamee ne taloo lu dul sa bopp. boo xamee ne taloo lu dul sa bopp. taloo lu dul àdduna. taloo lu dul àdduna. ah loolu bu dee mbooloo. loolu de bu dee mbooloo. ñu ànd ci càggante. ñu ànd ci càggante. lu leen dal ñoo ko teg seen bopp. leen dal ñoo ko teg seen bopp. bu dee kenn par kenn. bu dee kenn par kenn. kenn ku ne. kenn ku ne. la ko naqari ci boppam. la ko naqari ci boppam. càggante génnu ca. càggante càggante génnu ca. ku jublu sëriñ bi. ku jublu sëriñ bi. càggante dana day jeex ci yow. càggante day jeex ci yow. am serigne bi deug la doyna na am serigne bi deug la doyna na waye nekkal ko ci lim mu bëgg nag waaye nekkal ko ci lim mu bëgg nag mooy tawféex ju reyja moy mooy ju reyja alhamdullilah eh, nañ gor gor lu bu baax nañ lu bu baax sun gan gu tedd gi sun gan gu tedd gi nu nu nu nu gaaw nu gor lu gaawtu ci nu gaawtu ci ba delloo suñuy xel ba delloo suñuy xel yëngal suñuy xol yëngal suñuy xol suñu yitte jëpp suñu yitte jëpp ñu gàttandoo ko suñu kem kàttan ñu gàttandoo ko ko suñu kem kàttan bu ñu góorgóorloo bu ñu góorgóorloo lu ñu gën a góorgóorlu loolu gën a góor góorgóorlu lépp di gën a yomb lépp di gën a yomb lépp di gën a barkeel. lépp di gën a barkeel. waaye lu ñu gën a sàggan. waaye lu ñu gën a sàggan. jafe-jafe yi ñuy wax. jafe-jafe yi ñuy wax. muy baat bu xew ci jamono ji. muy baat bu xew ci jamono ji. dara andiwu ko. dara andiwu ko. loolu ñàkk a nekk ci li nga a nekk rek. ñàkk a nekk ci li nga war a nekk rek. njàmbar li. njàmbat li matu ko matu ko lu mu dal lu nu dal noo ko teg suñ bopp noo ko teg suñu bopp téere yi bañ ca maam Adama ba léegi mi ngi mu doon wàcc na ba ci ba ci alxuraan léegi si wàcc na ba ba ci alxuraan lépp lépp luy tax mucc lépp luy tax mucc mi ngi ci. mi ngi ci. lépp luy tax a raw. lépp luy tax a raw. mi ngi ci. mi ngi ci. lépp luy tax a texe. lépp luy tax a texe. mi ngi ci. mi ngi ci. lépp lu yóbbu àjjana nit. lépp lu mi ngi ci. mi ngi ci. kon nan góorgóorlu. kon nan góorgóorlu. wattandiku ak càggante. wattandiku ak càggante. kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun na def sam kem kàttanam na def kem kàttanam ngëm gi ngëm gi ak yitte ji ak yitte ak jëf ji ak jëf ji bu ci kenn bu ci kenn xeeb dara lu nu doye di ci nekk suñu kem kàttan nan ci nekk suñu kem kàttan ngatanum ndimbal mën na nu caa fekk ngatanum ndimbal mën na nu caa fekk waaye dem ba nga xam ne waaye dem ba nga xam ne tayatoo sa borom tayatoo sa borom tayatoo alaaxira tayatoo alaaxira ah loolu jërul njàmbat nee na lool jërul njàmbat ndax njàmbat li du waay du jëriñ ndax njàmbat li du jëriñ dara te day dolli joote rek te day dolli jafe-jafe rek jafe-jafe yi moom si xew na lool fi mu ne jafe-jafe yi moom xew na lool jafe-jafe nag dara andi ko lul càggante jafe-jafe nag dara andi ko lul càggante ku ku ku ku danaa di wax ne ku gëm yàlla dañuy wax ne ku gëm yàlla gëm alaxira gëm alaxira il faut que nga soppi saw doxin il faut que nga soppi saw doxin soppi saw doxin nag soppi saw doxin nag nga góorgóorlu mooy góorgóorlu jéem a xam li yàlla digle jéem a xam li yàlla digle jéem a xam li yàlla tere jéem a xam li yàlla tere nga di ca góorgóorlu sa kem kàttan nga di ca góorgóorlu sa kem kàttan jéem a xam lu baax jéem a xam lu baax jéem a xam lu bon jéem a xam lu bon di bëgg lu baax di bëgg lu baax di jéem lu baax waxtu wu nekk di jéem lu baax waxtu wu ne xam lu bon xam lu bon di ko jéem a daw sa sa xelu bakkan te di ko jéem a daw sa xelu bakkan loolu jafewul loolu jafewul xanaa ñàkk xam rek ñàkk xanaa ñàkk xam rek waaye ku ku ci mos loolu waaye ku ci mos loolu te muy dëgg ci yow te dëgg ci yow dootoo kuy wax ay jafe-jafe dootoo kuy wax ay jafe-jafe dootoo kuy jàmbatitam itam dootoo kuy ndax dangay xam ni am na lu xew ci yaw ndax da xam ne am na lu xew ci yow loo xam ne <laughs> loo xam ne ndolloon rek nga ci soxla. ndolloon rek nga ci soxla. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax. ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci loolu. ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci loolu. te wër sëriñ bi nii. te li lim leen nekk loo. te nekk ci lim leen nekk loo. ak ñi ñi ci ànd ak ñoom. ak ñi ci ànd ak ñoom. ñooñu di du ñu jot dégg ku ku leen di soññu. nee na ñooñu duñ jot a dégg ku leen di soññ. waxtu wu ne ña soññ seen bopp. waxtu wu ne ña ngay seen bopp. waaye nag. waaye nag. jaam ñi jaam ñi moom. yërëmtu la laaj. yërëmtalu la laaj. nu waat di yërëmtu. di yërëmtalu. di yërëme di yërëme di yërëme di laabiire di laabiire di soññe di soññe kenn ku nekk ci loolu kenn ku nekk ci loolu jàllale ko ci sa sa mbokkum jullit wala sa mbokkum ak sa mbokkum ko ci sa mbokkum jullit wala sa mbokkum taalibe ndax doyadi doomu aadama ndax doyadi doomu aadama boo ànd ak càggante boo ànd ak càggante kenn du xam fu mu jëmee borom kenn du xam fu mu jëmee borom ñàkk xam rekk fi ne ñàkk xam rekk fi ne waaye def sa xel ci sa borom waaye def sa xel ci sa borom mbaa nga bàyyi ko xel mbaa nga bàyyi ko xel te muy dëgg ci yow te muy dëgg ci yow ngay góorgóorlu bu baax ngay góorgóorlu bu baax doo doo doo jàmbat doo jàmbat doo jàmbat dara. doo jàmbat dara. ndax tal ga xam ne moom nga tal sa bopp sa borom. ndax tal ga xam ne moom nga tal sa borom. moo tax moo tax doo gis lu la jaral jàmbat. nee na moo tax doo gis lu la jaral jàmbat. ndax doo ko tal. ndax doo ko tal. yittewoo sa borom rek. yittewoo sa borom rek. ne ci lim digle. ne ci lim digle. daw lim tere. daw lim tere. damuy dëgg. te mooy dëgg. na ci na dàkk. na sax ca dàkk. day dolli ko rek. day dolli ko rek. diir bu gàtt. diir bu gàtt. nga am noflaay. nga yëg am noflaay. diir boo si gàtt nga ci dool moo ciy dolli ko. waaw diir bu gàtt. loolu moo ciy dollee ko. mooy mooy mooy moom sa bopp. mooy moom sa bopp. ci gàllankoor yi. ci gàllankoor yi. teq-teq yi teq-teq yi lépp di àdduna lépp di àdduna rek waaye ku soobu yoonu yàlla waaye ku soobu yoonu yàlla te muy dëgg ci yow te dëgg ci yow boo góorgóorloo tuuti boo góorgóorloo tuuti da nga gis loo xam ne dara dootu la jaral dëpp da nga gis loo xam ne lii dara dootu la jaral dëpp kon nan góorgóorlu rek kon nan góorgóorlu rek ah nga xam ne dañoo jéemul dara ñi nga xam ne dañoo jéemul dara ñooñu ñooñu ñoo ñoo ñoo ñoom la ñëpp ñoom ñoo jar wax. ñooñu ñoo jar wax. ndax ki ki kii jéem te muy dëgg. ndax kii jéem te muy dëgg. lu mu gën a dox. lu mu gën a dox. gën a xam ne mi ngi mi ngi ci yoonu gindiku. gën a xam ne mi ngi ci yoonu lu mu gën a dox. lu mu gën a dox. gën a tënkiku. gën a tënkiku. lu mu gën a dox ñoom gën a dox gën a am jàmm gën a am jàmm lu mu gën a dox ñoom gën a dox gën a yëg ak texe gën a yëg ak texe lu mu gën a dox lu mu gën a dox dana yëg di dana yëg dana yëg ak mucc dana yëg ak mucc mucc ci mucc ci mucc ci gàllankoor yi mucc ci gàllankoor yi ba mën a nekk ci la nga war a nekk ba mën a nekk ci la nga war a nekk loolu mm-hmm. nee loolu rekk la loolu rekk la kon nañ góorgóorlu nun ñëpp waaw nee nañ góorgóorlu nun ñëpp te jéem faj li nu dal te jéem a faj li dal te te teletuñu dara tele teletuñu dara telunu sunu borom telunu sunu borom telunu alaaxira kam jëm telunu alaaxira gan jëm loolu kan ñun ñëpp ko bokk. nee na loolu ñun ñëpp ko bokk. kana ci yoon wa. kana ci yoon wa. ma ngay xeeb doxinam. ma ngay xeebu doxinam. ka nekkul ci yoon wa nag. ka nekkul ci yoon wa nag. moom la ko jàpp. moom la ko jàpp. da koy gën a jàpp rek. da koy gën a jàpp rek. gën koo not rek. gën koo not rek. Hmm. wax ji. Hmm. wax ji. ñun ñëpp ko bokk. ñun ñëpp ko bokk. waaye. waaye. ñu ci ne xam ku ci ne xam nga sa bopp. ku ci ne xam nga sa bopp. nan wattandiku rek. càggante nan wattandiku rek càggante. dañuy góorgóorlu suñu kem kàttan. dañuy góorgóorlu suñu kem kàttan. ñàkk xam rek waaye jaamu yàlla jafewul ah ñàkk xam rek waaye jaamu yàlla jafewul julli waxtu yu juróom julli waxtu yu juróom di ko jéem di ko jéem xam ne loolu mooy sa xam ne loolu mooy sa wartif mooy sa njariñ mooy sa njariñ nga di ko jéem sa kem kàttan di ko jéem sa kem kàttan diir bu gàtt diir bu gàtt nga tàmm ko nga tàmm ko te gannaaw la nga la ci doon jéem yàlla tax gannaaw la nga ci doon jéem tax boo ko tàmmee boo ko tàmmee dootoo ko mën ñàkk def ko mën a ñàkk def loolu moom la jéem di indi loolu moom la jéem di indi lépp lu baax lépp lu baax boo jéemee boo jéemee te muy dëgg ci yow te muy dëgg ci yow loo gën a jéem loo gën a jéem gën a mën lépp lu bon lépp lu bon boo ko bañee boo ko bañee donte mucc muccaguloo ci it donte muccaguloo ci it gën ko ragal danga ko ragal gën ko wattandiku danga ko wattandiku gën caa gën a jéem mucc ci lépp lu bon gën a jéem mucc ci lépp lu bon dund gi yëpp dund gi yëpp loolu rekk loolu rekk ci nekk loolu rekk ci nekk kon nan góorgóorlu bu baax kon nan góorgóorlu bu baax suñu kem kàttan suñu kem kàttan tënk bi moom tànk bi moom mooy góorgóorlu ci njub mooy góorgóorlu ci njub góorgóorlu bu baax ci fonk suñu diine góorgóorlu bu baax ci fonk suñu diine góorgóorlu bu baax ci jëf lu baax te bu baax ci jëf lu baax te yàlla tax loolu loolu nañ jéem bu baax a baax lan ko jéem bu baax a baax a baax jéem googu nu koy jéem. goo jéem googu nu koy jéem. te muy dëgg ci ñun. te muy dëgg ci ñun nag. ko jëfee. ñu di ko jëfee. suñu kàttan. suñu kem kàttan. loolu rek. loolu rek. lan mën sant sëriñ bi. mën a sant sëriñ bi. am nañ tawféex ba am nañ tawféex ba noppi. waaye nag. waaye nag nekk ci lu ñuy sëriñ bi. nekk ci lu ñuy may ngërëmul sëriñ bi. moo gën a dal xel moo gën a dal xel sëriñ bi sëriñ bi bëgg lu dara bëgg lu nu dara lu bëgg rek lu li mu bëgg rek te moom bëggul dara lu dul yàlla ak yonent te moo te mooy bëggul dara lu dul nekk ci dara nekk ci yàlla ak yonent bi musta nekk ci dara lu dul nekk ci yàlla ak yonent bi lu mu ca dolli yërëm jaam ñi bëgg leen bëgg leen a bëgg leen a gindi bëgg leen a womat jëmale ci seen borom lu mu ca dolli mooy yaram jaam ñi bëgg leen a gindi bëgg leen a womat jëmale seen borom kon noonu rek la demee de kon noonu la demee dañu góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax ci li nu fi indi ci li nu fi indi suñ borom moo nu bind moom nu moo suñ borom moo nu bind moom nu moo nu fi wàccee moo nu fi wàccee sant nu di ko jaamu sant nu di ko jaamu loolu mooy sunu warteef. mooy sunu loolu mooy sunu warteef. amul leneen lu leneen lu jikk. amul leneen lu nu jikk. loolu dong la loolu dong la góorgóorlu rek la laaj. kon góorgóorlu rek moom la bu baax a baax baax a baax a baax a baax. ginnaaw nun sëriñ bi rek. mooy sunu lépp. ginnaaw nun sëriñ bi rek mooy sunu lépp. moo war a doon suñu dund. moo war a doon sunu dund. danaa di wax sëriñ bi moom danaa di wax sëriñ bi moom yoon bi alhamdulilah yoon wi sori na lool fa tabarakallah yoon na lool waaye ci sunu wàll waaye ci sunu wàll nun jàmm ñi nun jàmm ñi diggante ak sëriñ bi suñ diggante ak sëriñ bi bëgg gi bëgg gi. ak doyloo gi ak doyloo gi. fu yoon wi àgg looloo ko fa àgg. ko fa àgg gale. waaye nag xamuñu sëriñ bi. waaye nag xamuñu sëriñ bi. dunduñu ko itam nag. dunduñu ko itam. fii nu toll. fii nu toll. bu nu góorgóorloo. bu nu góorgóorloo. di ko gën a xam. di ko gën a xam. di ko gën a dund. di ko gën a dund. kaw rek la ñuy jëm. kaw rek la jëm. alhamdulilah ñin ko bokkal. ñin ko bokkal. muy sunu moroomi jaam. muy sunu moroomi jaam. ñun ñooñ Serigne Touba ñii. ñooñ ñooy sëñ ñooñ sëñ Touba ñii. bu nu góorgóorloo. bu nu góorgóorloo. du ñu ñee kenn. du kenn te dañu ñee rek. te dañu ñee ci biir ak ci biti. biir ak ci biti. tey jii ak ëllëg. tey jii ak ëllëg. kon nan góorgóorlu lu baax la. nan góorgóorlu lu baax la. loolu rek loolu rek. waaw loolu rek nag moom. ko taaw nan nan nan ci na nañ yeesal suñu lépp. koo sellal. parce koo sellal. suñu a baax a baax. nañ ci góorgóorlu bu jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mi ngi jégalu li mu war a